waaw tey nag bu ngeen gisee euh, ñu woote fii point de presse fii ci Cambérène euh, dara waralu ko rek lu dul euh, AGEROUTE bi nga xamante ni depuis sept ans yi nii ñu ngi fi def benn du projet muy VDN bi war a jaar fii ñu seetlu ni aussi ça fait deux ans ngi nii liggéey baa ngi taxaw te ñun xamoonu lan moo waral liggéey bi taxaw yàlla def bi projet bi du tàmbalee bi ñu ñëwee waxtaan ak waa Cambérène indi benn ouvrage bu mel nii dafa am benn problème bu causé woon liggéey bi muy benn miir bu ñu fi defoon à hauteur de cinq mètres largeur plus de 800 mètres bi dëkk bi nag xoolee ba xam ni lii ñu fi def enragé wul dëkk bi danoo jug président Macky Sall jël ndogal ni day daaneel mur bi ñu ko si sant di ci gërëm bi mu defee loolu. bi miir bi jàllee nag ñu ni dañuy def benn comité de suivi comité de suivi boobu. Euh, ñi ko ëmb muy Ageroute ak maire bu Cambérène ak chefferie bu Cambérène ñu dem Ageroute le 2 mai 2019 seen direction bi ñu waxtaanee ba trouver solution ñu ni liggéey bi dina tàmbaliwaat décembre ñu toog ba mois de mars le 5 mars 2020 ñu bind leen une lettre de relance le 17 septembre Omar Youm ñëw na fi mais boobu ñu tànn ñu leen neex pour ñu recevoir ko moom bind nan ko lettre nangu ñu recevoir dem nag dëgg nan ko muy wax ci rajo bi mais ni ñu koy xamal leen rek mooy liggéey bi ni mu taxawee ni arrangé wul waa dëkk bi parce que Cambérène kenn mënatu fi ñëw lu tax embouteillage baa ngi nii du sonal nu du pollution baa ngi nii du sonal nu pour nga ñëw Cambérène am taxe sax du problème la da ngay fay 5000 wala jëm kaw sinon doo dugg ak Cambérène Azurut nag bind na leen laajte tontu wuñu woo na leen faale wuñu lu dul di wax ci ay rajo te xam nan fi ñu war a ñëw pour wax ak ñin war a waxal lenn rek lan leen di wax mooy ne que télé une du semaine lan leen jox pour ñu recevoir comité bi nga xamante ne mooy comité de pilotage bu liggéey ñu wax ak ñoom lu leer parce que BRT baa ngi commencé dèjà ñoom tàmbali nañ fi ay liggéey yoo xamante ni cité kër góor gi dem ngeen fa am na ñaari point yu fa tàmbali liggéey ko mu pare tali baa ngi nii ñu bàyyi depuis deux ans mu mel ni Cambérène bokkunu si dëkk bi te li ci gën a ñaaw mooy dañ naan waa doomu dëkk bi ñoom ñoo bañ ñoom bañ du projet bi non Cambérène baareewul dara Cambérène dañuy souffrir ñu ngi na ñu ngi dee Cambérène bañul li fi ne comme projet bi weñaar nañ suñu loxo ñu def ka fi nan ko defee ci anam yi waa Cambérène bëgg beneen bi ci des projet bi boo xoolee relais relais Dakar ba Tivaouane Peulh amul fu ñu yëkkatee ay nit kër amul Cambérène rek la am ñu yëkkatee ay nit te fay bi leen fay baaxul bu du woon ak leen kaas du leen jox ay terrain tout les récemment même pas trois mois leneen li ci des mooy asuru danoo yëpp Ibrahima jaay le directeur ba yow la ñuy waxal dañ ne nu woon chaque deux mois dañuy réunion dara amul si gisuñu ci dara dara amu si sax jëbu toll nii kenn protégé sécurité amatul en Cambérène ba pare oto yi dañuy ñëw di dévier di dugg ci mbedd yi di mbëkk suñuy doom scooter yi di fi jaar di fiir suñuy xale boole ak benn du insolence boo xamante ni kenn xamul mais donc kon du problème bi lan la problème bi du Cambérène lu ñaaw lu jël rek teg ko waa Cambérène Cambérène neewoon na leen su ngeen ñëwee ñu waxtaan ak yéen ñu accompagner leen ci projet bi te loolu ñu waxoon juguñu ci tey juguñu ci ëllëg kon ñu ngi interpellé monsieur le président Macky Sall yow mi waxoon nanu dem def li waa Cambérène bëgg yow jël nga ndogal daaneel miir bi mais gars yi ba léegi defanu li nu bëgg ba pare nag Cambérène amul accès ci VDN bi loolu ñu teg ko fan wala ñun dañ war a dem ba relais wala ñu dem ba Tivaouane Peulh door ko fay jëlee loolu duñ ko nangu parce que suñu suuf la ñu joxe may wax leen ci Macky Sall président de la république moom bu dee bu xasee ba wax. laay laaj ba xam moom li mu wax président de la république bu wax ni defal leen li ñu bëgg ña nga ko waxoon defuñu dara pour Cambérène Macky si fii dëkku diine la lu dëkku fitna lu dëkk bu ñuy taxee chaque jour nekk fii ci média yi naan dañuy wax suñuy kilifa taxaw na pour chaque jour pour baare yi mbañaam mais nag bu kilifa jugee di wax ak kilifa chaque jour la kilifa di wax ak ñun du si def dara loolu xoolaat ko bu baax yàgg sa gouvernement maa ngi leen ci bàyyiloo xel bu baax lépp luñ ci wax rek li ñu waxoon ci fii rek def ñu wax ñu ñu daaneel miir pare bàyyi ko nii dëkk dëkk la boo xam te ni dëkku si naay saar walaay <laughs> dëkk bii dëkk boo xam te ni moom moom ñeeyam de titre foncier la am maam Seydou Doka am kon nag euh, bu buñ xësee ba def li nan ko àggale comme ni ñu ko waxee. fii nag euh, une semaine lan wax waxuma la ay baatale dañuy wut ay migrants gas ko nit sax du fi jaar wax ma la ak oto xam na ni nag fii bu ñu ko baaree dakaar kenn dootu xëy kenn dootu wàcc dinañ ko def comme ni ñu ko bëggee comme nag ñoom dañ bëgg surtout ñuy génn ci média bi di wax dañuy génn ci média bi di wax ak ñoom parce que nag cër gi ñu war a jox Cambérène dafa des lu bari nañ ci bàyyi xel. am am nan lu ñu metti trop am nan lu ñu metti trop moom njiitu réew mi. jël engagement conseil de miss defal leen Cambérène lu ñu bëgg ñaata boobu tey ñaata ñaata ñaata at la. deux ans defuñu dara. kon nag yow yow njiitu réew mi boo xasee boo xasee ministre def leen ñoom defuñu xamal ni sa kàddu si si si say ministre jotewul kon nag loolu laa si amoon lu ma ciy wax. di si bàyyiloo xel bu baax moom njiitu réew mi ak mi àndal. ñu ngi leen di xaar nag. danoo ñun ñun. Oh Euh, booba tey dégg ngeen fii comme li ma waxee woon ci ba ministre bi ñëw muy Goro Macky Sall boobu xaw nu mu tudd bu ñu lay ñëw fii la ma ko waxee woon laa koy waxaat moom boobu ñëwee sax moom mu ngi ñëw naan Cambérène jar seen doom na bàyyi xel ni fii fii dëkku diine la ñoom ñëpp gouvernement bi nañ bàyyi xel ni fii dëkku diine la benn cër rek si xalifa bi dañ ci bàyyi xel ñun nag njabootu xalifa bi la te am loo xam te métti nañu torop ñun du du daw duñ yàgg yàgg maa gis ñu porté ay xeex si dëkk bi mu suñu si arrière mais boo gisee suñuy mag ak suñuy nangam rek moo tax ñu defee nii huit heures fi la ma fekk ma toog dog toog si biir policier am ñu li ñu ragal tiituñu kenn tamit kurul yàlla bu ñu ñu jengoon sax dañuy wax dëgg ragal ñu dara ci ñuy arrière suñu si benn pas ñu ci bàyyi xel loolu moo tax gisuñu mais fii yëg allah dimanche semaine ndax euh, samedi ñu nag waa dëkk bi yëpp dan dan daje ci jàkka ji buñ xëyee ba def ñuy def dimanche nag dañu dégg waxuma la baare de mais boobaa kenn dootu jàll Cambérène joxe ngeen délai euh, une semaine waa AGEROUTE pour buñ leen euh, gestuwul ci li ngeen bëgg bu fekkente délai boobu weesu na lan ngeen fas yéene def délai boobu bu weesuwul te li leen wax defalu ko tali bi la ñuy baare Cambérène kenn dootu jaar loolu day leer délai boobu bu rombee te ñoom gisuñu wala waxuñu ak waa dëkk bi dama ni VDN bi laa wax tali bi kenn dootu fi jaar tali bi la ñuy baare bunt yi juge kam yu juge Dakar dugg fii fu waay mën a génn dañ koy baare oto dootul dugg fii si Cambérène ba keroog ñuy la li fi ne